mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu bokkee musti ci seytaane ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa di julli di salmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ngeen ko xamee rek ñu ngi leen di toppal burdu yi tey ji nga xam ne mooy juróom-ñetteelu bunt fa tabarakallahu tombeek talaata nga xam ne suba ci àllarba ji mooy nekk neuvième di juróom-ñeenteel alxames mooy nekk fukkeel incha allahu taala yàlla nañ ci yàlla yu boog jàmm niñ leen ko doon toppalee ci jàkka yi tey nag dañu ñëw ci kër maam El Hadj Ahmed Lamine Diène maam El Hadj Ahmed Lamine Diène radiyallahu taala anhu bokkoon ci kàngamu Cheikh Seydi Aboubacar yi nga xam ne ñu bari min nañ turam sunu génération rawatina nag ñu ngi ko miinee ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi nga xam ne nee na bi muy ñëw Ndakaaru Serigne Babacar Sy daf ko waxoon ne soo demee lépp looy dox ci diine seetil El Hadj Amat Lamine Diène tey ñu ñëw ci këram di jël li nga xam ne mooy burdu bi kii jiite burdu bi fii ci këram mooy doomam ju tedd ji di xalifaam di imam Papa Djibril Diène ànd koog rakkam imam Abdoulaye Diène di imam ratidu Gueule Tapée bii ñu nekk ànd koog mboolem taalibe yi ak dëkkandoo yeeg soppe yi nga xam ne fa tabarakallahu ñëw bokk kër gi xam ngeen ne kër gi këru cosaan la ndax fii ay yu ma bëri ci ndakaaru fii la ñu jàngee sunu tuddee imam Maodo Sylla dina yóbbaale ay yu ma yu bëri ci ndakaaru kon li ñuy def mooy ngeen topp seen télévision internet DK TV people mu ànd ko fa tabarakallahu ak seen mbokk seen wëllëre ba ci Diouf incha allahu taala lépp lu fi rot ci wàllu burdu bi dinañ leen ko tegal ñu ngi ñaan lépp loo xam ne ñan nañ ko fi ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem ci réew mi ci mbokk gi ci diine ji yàlla ñu ko yàlla nangul ci njub ak mbaax te yàlla yokk sutura yi baax papa Jibril Diène di xalifa maam Amat Lamine Diène ak rakkam yu tedd yi mu fi nekkal yëpp jiital ci imam Abdoulaye Diène di imam ratit ak tamit sunu pappa sunu baay El mi du Diène di ko bàyyi xel di ko ñaanal yàlla wérit di ko ñaanal mbokk yëpp yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura ñu toppal leen léegi burdu bi fii ci biir kër sunu maam El Hadji Amat Lamine Diène yal na yàlla fayal ñu ko. للأشهر الحرم المعتل الملتتم مولاي day بعدها من فجس من غير منعجم مولاي and the Son. linda بالخلق كله خير الورى شرفا فالله حافظه من كل

حبيب مولاي خير الخلق لي وشيعته وصحبه من لدين قد نشروا lim بك خير الخلق كلهم قدر الجميع بالمال والمطر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خير الخلق كلهم والطير والوحش والاسماك مع نعم يدعو والشعر والسفك والأياش والوبل مولاي صل وسلم فارتخروا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 إليك خير الخلق كلهم تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحق لا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 الخلق كلهم كربا أنا أنت مقتدر بك خير الخلق كلهم به الأمم في الخلق كلهم سعد سعيد نوح في طلحة توبة السحر مولاي صل fekkoon toppoon ngeen seen télévision internet DK TV mu ñëw fii tey ci kër sunu maam ju tedd ja maam El Hadj Ahmed Lamine Diène radiyallahu taala anhu jëloon burdu bi tombek huitième bunt di juróom-ñetteel tey jii ñu ñëwoon fi nag fekk fii doomam ju tedd ji imaam papa Jibril Diène ànd ceeg rakkam ju tedd ji imam Abdoulaye jéen ak mboolem njaboot geeg waa Daïra kër maam El Hadj Amat Lamine Diène ak waa Gueule Tapée yëpp daanaka ci gàttal. ñu ñëwoon jëlal leen ko ci kër gu barkeel gii nga xam ne ay yuma yu bari ci ndakaaru fii lañ dalee baa waaye tamit asatis yu bari ci ndakaaru fii lañ dalee baa ngeen xam ne mooy kër El Hadj Amat Lamine Diène biñ leen toppalee burdu bi ñëw taataan dégg ngeen ni ko imam papa Jibi génnee ànd ak rakkam ak mbokk yi tedd yëpp jàng burdu bi kon ñu ngi ñaan ñu ngi jëm nag ci suba incha allahu taala neuvième bunt nga xam ne alxames la burdu bi tëj bu ngeen toppee seen télévision internet DK TV lépp lu rot ci burdu bi dinañ ko ànd ak yéen ñu ngi ñaan yàlla sax euh, saxal jàmm ci réew mi yokk fi sutura ci barke gudd yu tedd yi yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ñu gàmmoog jàmm dellu soit ci jàmm noonu la ñuy defee nag ziarat bu baax imam Papa Djibril Diène ak rakkam ju tedd ji imam Abdoulaye Diène di imam Ratib ak jabootu maam El Hadj Amat Lamine Diène yëpp di ñàkk di ñaan yàlla saxal sutura ci kër gi daara ji saxal ko ci dayra bi saxal ko ci réew mi yëpp ñu ngi wax kon mbokk yëpp di leen jox di daje ci yeneen i jotay ak seen télévision internet DK TV people wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu